di sant yàlla beneen yoon di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooloom yépp di rafetlu teewaay bi comme niñ ko rafetloo ci Chief Abdou Khadir Amiru Dagomba noon lañ koy rafetloo itam ci Cheikh Ibrahim Tahir Bauchi noonu lañ koy rafetloo itam ci Mouhamad Yaxyaawul Tulba kii su ngeen ko xamut baayam Mouhamad Tulba Mouhamadanul Tulba moom la bàyyi waxoon ne moom mooy dirul faydati mooy Yaxya mi toog ñi ngi sant yàlla itam ci teewaayu shérif bii di sëti Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ñi ngi sant yàlla ci teewaayu doomi bàyyi yi fi teewoon dalee ko ci Cheikh Mouhamad al Aqib Seydi Mouhamad Yaasin Seydi Abdul Malik mi ngi nii toog ba tey ak jigéen ñi gis naa fële soxna Ndey Ayda ak Mariama ak Nafi Baye bi ñuy dugg ci mbaar mi ñoo ngi moom a duggandoo fii ak ñëpp ñi jógee Banjul gis nañ leen dalee ko ci imaam Mouhamadul Mountakha Faye ca Banjul ak ñoom waa daayira ba ca Banjul ñoom Cheikh Gassama ak Kéba Ndiaye mi nga xam ne fekkee na jataay ba ca dakaar ak ñun toog na itam ba fekkee jataay bii ak waa Kër Jar pour fekkee si lii Cheikh Kébé suñu xarit suñu wëllëre bu yàgg moom itam ñëw na ànd ak magam Adja Dieye dëgg-dëgg ñi fi ñëw ñëpp kenn mënta lim ñëpp ñoom Cheikh Tidiane gay ñoom day Fatou ñëpp ñëw nañ dafa am njëriñ luy dellu ci ki ziyaara si moo xam ki ñuy ziyaara mat na ñu ziyaare ko wala matu ko sax nu mu man di demee rek ki ziyaara si moom du perte te ñun alhamdulilah kii ñu teew ci ziyaaraam tey ku mat la pour ñu ziyaare ko ñoom bàyyi dem ba may waxtaan ak ñoom wax naa leen ne saalihiina yi dañoo wax ne man sabatat wilaayatuhu wajabat xidmatuhu képp koo xam ne wilaayaam sax na liggéeyal ko war na te Seydi Ali mii sëriñam moo wax ne wàlliyu la ñun waxuñ ko leetar yaa nga fële waaw mu di ko tuddee alwaliyu saalih wa nuurul waadih wala ba baabu nafahaati l ilahiya xalifati cheikh tijaani bila nisaayin wala shiqaq yii yëpp sëriñam tuddal na kon kooku suñ jógee pour ziyaare ko ñun juumuñ te fiñ def suñ ziyaara itam lu jubla su fekkee ne abdul aali moomu abdul aali moomu jógoon di ziyaara ji nit ko xam ne matut pour ñu ziyaare ko du sëriñ sax xaqiqatan ba mu demee ba ca kër sëriñ ba gannaaw bu mu miraasee boppam yépp def ko àddiyeena dafay dem jébbal ko sëriñ boobu jébbal ko boppam di ko liggéeyal te yàlla tax ba mu demee ba fëgg bëkk nekk bi nekkan la mu ne Abdul Ali mu laaj sëriñ bi mu wax sëriñ bi ne ko kii fëgg bunt bi day Abdul Ali la tudd ah mu ne ko ubbil ko mooy suma naanandoo bi rek guddi gu jot ñooy bokk di naan sàngara ba bër set ah mu ubbil ko ñu ko ubbilee muy keneen abdul ali ak lim gis lépp sàngara seek jigéen ñeeg yépp taxut xelam soppeeku wala mu am sikk ci kim set ba mu nuyoo sëriñ bi ba wax ko yoonam jébbal ko mbooleem lu mu amoon addiya sëriñ bi daf ne nañ ko jox miisu mburu jox ko jumtuwaay mu dem ca toolam ba ca biti dëkk ba fareewoo foofu di ko fa liggéeyal mu dem def loolu waaye jullit moom li ko war toujours mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax comme ni ko yonent bi waxee xaslataani laysa fawqahuma sheyun min al xayr xusnu zanni billahi wa xusnu zanni bi ibadillah ñaari jikko yooyu nee na moo gën ci jikko yi nga am njort lu rafet ci yàlla am njort lu rafet itam ci jaami yàlla yi loo njort ci yàlla rek loolu nga fay fekk jaami yàlla bi itam li nga njort ci moom rek moom ngay fekk foofu Baay Ñas daana wax ne law itaqadta ala xajarin la nafaak xeer rekk soo ko gëmoon mu jëriñ la waxantuma wàllu yàlla njort lu rafet loolu ci yàlla njort lu rafet loolu ci jaami yàlla yi abdul ali moom lan la ko yàlla fayee daje nag borom xutb bu doon génn àddina bi waa xadra bi dajee di seet kan ci mbind yi mu doon bindal bàyyi te bàyyi óolu ko ci lool óolu goo xam ne sama yaay nett na moo bés bàyyi dafa yónnee ziyaara si tey ñi ngi gërëm taalibe yi Baye Niass dafa weddi wax ju arab wax mu ne araab yi dañuy wax ne nit su defee waajibam kenn waru ko caa sant am bind pour sama baay bindal ko ko fekk naa ci yàlla jaratut may defati loolu mu ne ko déet déglul nag lawlal waasitatu lan tafal suut ba pare ne ko la antaraani marratan waxidatan xayrun laka min antara allaha alfa marra lawlal waasatatu lan tafal mawsut ne ko ah déet déglul man mii nga gis ma benn yoon moo gën nga gis yàlla junne yoon su waasita amutoon rek doo àgg ci la nga àgg soo amutoon sëriñ bii la àggale ci yàlla kon doo àgg ci yàlla kon nag kooku waroo koo fàtte sa giri dund waxtu wu nekk war nga di ko fàttaliku ndax mooy sa bàyyi roxo sañ-sañ bi mu am ci yow sa bàyyi ndigg sañu ko ci yow imaam Junayd ba tey nee na dafa toog bés baayam yónnee di ko oolu en même temps sëriñam itam yónnee di ko oolu mu ne mu jiital uy ji sëriñam balaa dem ca baayam mu ne jàpp na ne maqaama yi ko yàlla may yëpp gannaaw gi ca lam jiitaloon sëriñam ci kaw baayam la ko yàlla mayee ñoom nag ay nit la ñoo xam ne suñ jàppee rek jàpp nañ bañ jébbaloo yàlla jébbaloo ñeel yàlla jébbaloo benn yoon rek la sajdatun waaxidatun min al azali ila abad sujjóot nañ ñeel yàlla jeex na nekkatuñ fa sax di sujjóot sat benn sujjóot rek la def nañ ko jeex na jox nañ seen bopp yàlla jeex na waaye lu leen yàlla faye man kaana lillaahi kaana allaahu lahu soo nekkalee yàlla rek yàlla nekkal la su soo nekkalee yàlla ci sa jëmm ju tuuti ji sa mën-mën sa am-am lépp limité wu sa dund bi nga xam ne am na fu mu dalee am na fu mu em yàlla nekkal la ci dundam bi nga xam ne amut fu em yàlla nekkal la ci dooleem ji nga xam ne amut lu ko të yàlla nekkal la itam ci jëmmam ji nga xam ne ma nga fu nekk yàlla nekkal la itam ci lépp loo xam ne sa jubluwaay la ndax soo demee ba nekk di moom ataani yaa abdi taqulu li shay kun fa yakun loolu ci topp yàlla rek la ko jàmm mën a amee kon taalibe yi ñu leen di gën a ñaax ngeen sax ci lii ndax ñi ngeen nekkatoon dañoo saxoon ci lañ nekkoon maa ngi doon waxtaan ak Cheikh Tidiane sama ma ne ko man li ma gën a jaaxal soo gisee arabiyatu bi bàyyi ak sama bàyyi bind bañ nekkee Koosi minal bidaaya amut benn taqaddum wala tatawur bu am ci mbind mi lañ doon bind bañ nekkee fee rek nga xam ne maraaji yi nit ñi am fi ne amut jëlaalee ni benn la ci gox bi yëpp kitaabul jëlaaleen biñ demee ba maraaje yi ñëw itam soo gisee seen mbind yi nam dëgëree woon ca jamonoy Koosi rek noonu la dëgëree nga xam ne kon seen arabiyatu boobu du arabiyatu njàng xaqiqatan jaar nañ ci njàng waaye arabiyatul fatx la Ilyas Kachina benn boroom xam-xam bu mag ca Nigeria mu ne maam Serigne Baye def na ko soo bëggee gis ku jàng maag Seydi Yàlla yi ñoo sonn ci mbiram njàng waaye Serigne bi jàngut waaw te moo leen jàngal ñoom itam li xam de waaw Serigne bi moom moo fi balaa am. Baye lam nekkee woon ca njëlbeen. dara soppeeku ci ci nihaayaam nam fonkee woon julli dara soppeeku ci dem na ba mën a taxaw julli lu mooy ci coono biñ sëlmalee mën na ko bàyyi laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha sa yaram mayatu ko toogal nga julli toogal ndeysaan bi ñuy julli timis mu toog waaye biñ liqaamee gee rek mu mu ne bëreet taxaw nga ñëw ci wirda wirda laazim ba mu demee ba mënut a téye kurus sax baaraamam yi la doon wirda docteur bi daf ne woon waxtu bu nekk naa koy may ndox muy naan pour dimbale deretam mu circuler ma indi ndox mu di ma xool te jëlut bi ma taxawee ba sonn ma dem toogaat fa ma nekkoon ba mu wir daa ba pare mu ñëw mu ne yal xasan kuntu aqra'ul wirda lazim wal muridu tijaani ida kaana yaqra'ul wirda lazim laa yatakallam wala yashrab ma ne ko yaa cheikh ana qaratu fi kitab duratu taaj yumkin an yashrab mu ne ma walaw juraatan benn guux sax mayuñ ko mu naan ko mu ne ma bi ma ñàkkee jël ndox mi ci yow dama doon jàng suma wirda te boobu teewul kurus loxoom la doon wirda te taalibeeb tijaan suy jàng wirdaam du naan du wax ma ne ko ah bàyyi man de jàng naa ci téere bu ñuy wax duratu taaj ne mën ngaa naan mu ne ma déedéet walaw juratan ab guux sax mayuñ la ko mu ne ma sopp nañ sax soo wirdaa ba pare nga toog ab diit soo naan ndax naan dafay fay ali sikkar dégg nga kon kooku ak ay wirdaam benn jamono nga ñëw ba ci biñ takkee benn pikiir ci loxoom waxtu julli jot mu ne asan waxtu wi jot na ma ne ko waaw mu ne man nu may jullee tey ma ne ko bàyyi bul julli tey man boobu ba tey maa ngi ci laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha mu ne ma loolu la Maalik wax de wa man lam yajid ma an wala mutayammama fa arbaatul aqwaali yaxkina mazhaba yusalli wa yaqdi aksa ma qaala malikun mu ne Malik def ne laa yusalli wala yaqdi soo demee ba nga xam ne amoo ndox moo jàppee mënoo tiim su boobaa julli gi rot na Malik loolu la wax. Ibnu Qasim moo ko jiitu nee na yusalli wa yaqdi maanaam da ngay julli ci anam goo mën di jullee rek soo demee ba am ndox wala nga mën a tiim nga tiim julli julli normal waaye ma imaam Malik moom def na doo julli doo fay sax soo demee ba amaam ndox imaam Asbax. wa asbaxu salla wal qadaau li ashhaba imaam asbax ne jullil rek te bàyyi imaam ashhab ne toogal rek ba ba nga mën a fay nga fay dégg nga ñeenti ngir yooyu ñoo taxaw ci masala moom li ma ko nettalee sama baay mu ne ma est-ce ci sëriñ bi dem ba tëdd ci sa lali di fàttaliku say masala mbiram moo xéemu dégg loolu yëpp liñ joxoon yàlla seen bopp yàlla jox leen léppam su sufiyanke bu doof bi looloo taxoon mu ne nguroom gi moo ëpp nguur ak yàlla gi ñu ne wax na toj toj mu ne ah tu yàlla moo wax ne man kaana lillaahi kaana laahu lahu man su ma nekkalee yàlla yàlla nekkal ma te yàlla moo ëpp nguuram gi xanaa kon kay fii ne maa ko le waaw moom loolu la waxoon loolu yëpp sax sax ci li nga nekk moo ko indi wolof sax ci seen léeb ñu ngi wax ne ku yàgg ci teen baag fekk la ci nañ sax ci kóllëre yi nga xam ne dañ koo jàppoon te ba nga koy jàpp kenn forcé wu ci yàlla wax na ci alquran laa ikraha fi diin yax na wax na feneen ne fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur ci kenn kum neex na gëm kum soob na weddi kon bi nga engagé woo dugg ci li lislaam wax yépp danga ko war a sàmm sa sa kemtilaay kattan yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadi jullit mooy koo xam ne jullit ñëpp moo mucc nañ ci làmmiñam mucc nañ ci loxoom ñu ngi ci jamono joo xam ne nag mën ngaa ubbi sa làmmiñ wax lu la neex ci nit te xamaloo ko dara sax mën ngaa jël sa doole lor ci ku la neex saa nga sàmm ne kii jullit la wala kii sama mbokk la te yooyu ñu war a teet la yàlla daf daf ñoo boyal ni ci àddina rek ñuy dem waaye bés dana ñëw kenn ku nekk yàlla dina taxaw ak yow kenn par kenn laaj la sa dund ci loo loo ko loo ko def sa xaalis ba nga amoon ci lan nga ko def sa wér gi yaram ci lan nga ko def faraax ba nga amoon sa waxtu yi nga am xam ne defoo ci dara lan nga doon def boobu bàyyi dama ko laaj benn masala ma ne ko intere yi ñuy joxe ci banque yi yow lu ci sa xalaat man dama jàng benn article ci benn journal boroom xam-xam yu bari wax ci am na ñu wax ne dagan na am na ñu wax ne daganut am na ñu wax ne fii xawlaani mu ne ma xawlaani lan ñoom koy nañu wax ne dagan na wala daganut rek mu ne ma ci jamono Sidna Omar ibn Xattaab Abdoulaye ak Ubaydullaay dañoo dem Sham doomi Sidna Omar ibnu dañoo dem Sham ak mbooloo ci jullit ñi bañ demee fekki Abu Musa al mu ne leen ibna amiril muminina la wajadtu tariqan li nafikuma la nafaatukuma su mu amoon yoon pour di pour jëriñ leen day danaa leen jëriñ waaye nag maa ngi fi amee xaalis boo xam ne baytumaa la ko moom te booba mboq ci seen natt bi ñuy wax irdëb irdëb min al ci jamono joo ca Cham mi ngi jar ñaari dërëm soo ko yóbboo Madina ma nga fay jaar ñeenti dërëm mooy léegi xaalis bii ma amee xam ne baytumaa la ko moom na ngeen ko jël ngeen jëndee ko mboq su ngeen demee ba meddina ngeen jaay xaalis bi double ngeen delloo xaalis baytumaal rasmaal bi ah ribxi bi nga xam ne moo ci tegu ngeen jël ko mu ne bañ demee ba meddina ñu jaay xaalis bu double ñu bëgg a jël seen bénéfice mooy sidna Omar bañ ndax lim leen defal yéen ñaar ñii daf leen koo defal ngir ne yéen ay doomi amirul na lu tax defalu ko ñi ci des itam ne dafay dafay nangu xaalis bi yëpp def ko ci baytimaal Abdoulaye noppi waaye Ubaydulaay ne ko déet yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax na ci beneen xadis ne al mutamanu daaminun nit ki luñ ko óolu ba dénk ko rek daf ko war a garanti xaalis bi su réeroon dañ ko war a fay kon nag su juree lim jur ñoo ko moom sidna Omar bañ na def koy def ci baytu mal ñettee woon foofa ci sahaaba yonent bi sallallahu alayhi ne ko defal leen ko xiraat xiraat mooy ma jox la suma xaalis tey la premier mai nga dem liggéeyee ko ba premier décembre wala fin décembre nga dellu si ak bénéfice ak xaalis bi gannaaw boo dindee say coono bénéfice ba ca topp nga séddoo koog borom capital bi fifty fifty loolu dagan na ci lislaam ñu ne ko kon nag defal leen ko xiraat sidna Omar sa ko wàcc ci xalaat boobu defal leen ko xiraat jël rasmaal bi nga xam ne baytumaal la ko moomoon ak genn wàlli alal yi nga xam ne juddoo na ci xaalis bi bàyyi leen genn wàll ga la ñu séddoo waaye bàyyi def caa teg ne ma yow de soo mënee dund te intérêt banque doo ko laal nga dund saa nga saa nga laal ko moo gën noppi ba mu yàgg mu ne xée soo xamoon ni mucc jafe. waaw soo xamoon ni mucc jafe boobu nag mooy problème bi. waaw ni mucc jafe nit ki lu mu xamut waru caa dugg. alquran nga lay digal wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun loo xamut waroo cee joxe da ngay gis ay nit. dem di tukki nii rek ñu laaj leen yëfi bàyyi lonkaa ñoom xamuñ ko xawma ko nisful ilmi laa adri xawma ko moo gën a gàtt waaye ala foog nga fent fi maa ngi dem New York gis ko xam ne dafa am la kum laaj mbiri tarbiya mu di ko jox fukki junne salaatu faati gannaaw julli gu nekk waaw ma ne ko lii dee déggewu ko ci bàyyi déggewu ko ci muqaddam yi nekkoon ak bàyyi waaw nit ki daal lim xamut imaam Malik bi waa Andalus defee seen délégation jógee Andalus ba war a yóbbul ko ñeen fukki laaj laaj yépp mu tontu ca fukk ak ñaar la des ca laaj yépp ñaar fukk ak juróom-ñett mu tontu ca laa adri waa ji ne ko waaw léegi su ma delloo Medina lan su ma delloo andalus gannaaw bu ma takkee ba agsi ci daarul hijrati ci imaamu daarul hijrati imaamu daaril hijrati mu ne ko soo demee nga wax waa andalus ne dem naa ba madina ca imaamu daaril hijrati am na laaj yu ma ko laaj tontu na ma ko lam ca xamul ne na ma laa adri nisful ilmi laa adri dangaa bëgg ma jaay sama diine ne la xam naa ko te xaw ma ko defuma loolu nañ jël dars yooyu nit ki lu duur domenam bu mu ci dugg oote itam xam-xam xam-xam yi fi bàyyi te mënoo jàng bàyyi mbiram nii mi ngi ko teg ci xam-xam waaw mbiram nii mi ngi ko teg ci xam-xam laaj naa ko benn laaj man ne ko bàyyi Pape Jim Guèye daf ñoo waxoon mu sa kër bàyyi yaag alaaji mot seen bu yéen ci gën a mën a jàng ndax da ngeen téere yi seen bàyyi amoon ba di jàng xam ne seen bàyyi amu ko mooy su ko waxoon ci alaaji day mën a waaw alaaji de mbër la jàng na téere yëpp waaye man bi ma doyee xale jàngaluñ ma lii nga gis nii yëpp góorgóorloog ndimbalal yàlla rek. waaye yàlla moom la may xam-xam bi. laaj na ma ci London ne ma ndax jàngaloon naa la maqaamaatul Hariri ma ne ko waaw mu ne man de ba ma koy jàngale dafa meloon ni dama koo mokkal ma ne ko ba koy jàng ba nga koy jàngale mu ne ba ma koy jàngale laa la wax ndax jànguma ko ci kenn. bi ma ñëwee Medina ma nettali Baye Amadou Thiam wax boobu mu ne ma loolu man maa ciy sedd mu ne maam Alaaji dafa décidé ne nañ jàll nañ jàngale maqaamaatul Hariri. ci kër gi te alaaji seen Zeynab moo koy firi mu ne waa kër gi yëpp di teew ci dars bi ba mu des bàyyi mu ne mu dem seeti ko néegam ne ko ah yow ni nga mel ak alaaji muy jàngale dars bu rëyee nii ci kër gi ñëpp di teew ba mu des yow mu ne ko man dama xamante xale dama cee gis lu may jàng ah mu ne ko da ngaa bëgg a wax ne su ma la indilee téere bi nga firi mu ne ko bu baax bàyyi amatu mu ne mu indi téere bi mu ne bàyyi firi maqaama bu njëkk bi mu ne mu gën a neex bu maam alaaji gën a neex bu alaaji mu firi bu ñaareel muy noonu mu firi bu ñetteel muy noonu mu ne ko yow mën ngaa ñàkk teew loolu ci may yi nga xam ne yàlla daf ko jagleel waaye moom ci boppam itam gannaaw gi nee na damaa jàng bay bëgg a dee ndax imaam Mouhamad Lamine ba ca Banjul yónnee na ko ay laaj bàyyi jox ma leetar bi na ma demal nga tontu ko demal nga seeti miyaar lil woon cherichi masala mii muy laaj toxal jàkka ji fi toxal jumaa ji fi mu nekkoon ci beneen place soo demee cee juzu raabe mujalladu raabe ci baabu salaatil jumuati da nga ca fekk masala mi nga bindal ma ko leetar tontu ma dem indi téere bi ak masala bi mu ne ma gis nga téere bi ñeen fukki at ngi ubbi wu ma dem bindal ko leetar bi fa ilaa imaam Muhammad fa ilaa imaami Banjul sayid Muhammad Lamin Ba al muhtaram assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ama aljawaab an almasala allati saaltum anha fa huwa kalaati daal di indi jawaab bi ma indee pour bàyyi signé lettre bàyyi na ma yow itam déedéet da nga koy yokkal defal ko fa ilal imaam ibnil imaam ibnil imaam assaami lam tazidu maarifatan wa innama lazzatan katabnaha imaam Mouhamed Lamine bi mu jotee lettre baay bi moom adresse bi rek moo ko ci gën a neex sax fa ilal imaam ibnil imaam ibnil imaam mu ne xaa bàyyi ñes rek moom ma xam xoolal ni ko bindee fii rek man maay Mouhamad Lamine doomi wàkk doomi ma Mati doomi Maba Jaxu te ñëpp ay ilimaan lañ xool ni ko Baye Niass bindee rek waaw nga et eh, loolu itam daf lay won beneen dimension ci ci Baye Niass ci at yële ci gannaaw dafa am benn shérif xaadir la daf maa téléphoné ne ma yow de dégg naa sa affaire nga neex ma te xaw ma la gisuma la waaye nag maa ngi lay digal sa maam bul foog ne dafa jiitoo nit ñi xam-xam bu mu leen ëppale wala alal ju mu leen ëpple doon ko séddale ci ñoom mu ne ma déedéet mu ne benn jikko moom la sa maam jiitu woon ñëpp mooy borom ngëneel lu mu gis rek nangul na ko ngëneelam daal di way ñaari bayt fa maa abbara al insaanu an fadli nafsihi bi misli ictiqaadi al fadli fi kulli fadili wa inna ashadda naqsi an yarmiya al fata xasal aybi an aynihi bintiqaasi al afadili mu ne nit wanewul ngëneelam lu ëpp borom ngëneel gum gis rek nangul ko ngëneelam mu ne ma loolu la bàyyi ñes rawee woon ñëpp borom ngëneel gum gis rek nangul na sa la sa nangul na la ndax du ko wàññi moom dara hmm? isaaka bëkk ne gi baay bi moo may wax ne ma bàyyi waxtu wu tëddee ci nelaw man waxtu wu tëddee ci lalam mën naa nelaw ndax la ndax moom xam na lam am fa yàlla waaw moo tax may keneen tiitalu waaw nit nag soo demee ba may benn nit benn mbindeef tiitalu la su boobaa da nga jublu ci sa borom te du am benn problème ñun sëriñ bi ñu am may benn nit titalu ko bañ na ko ba moom moo waxal boppam ci benn lettre ne mu ngi sant yàlla ndax yàlla jox na ko jikko boo xam ne ñu bëri ci góor yàlla jikko boobu amuñ ko mooy lan mu ne moom añaanewut benn nit añaa añaanewut kenn nit kum mu gis rek ak may yàlla yi nekk ci yow rek gërëm na loolu ndax xam na ne lii mooy nammi nammi yàlla ci nit kii waaw soo demee ba nangu nammi nammi yàlla bi nag ci nit ki yow doo dox pour soppi loola Ah. yàlla moo def ne nit kii dana dana mel nii dana danaa ko jox lii hmm, hmm. moo tax aji añaan añaaneewut nit ki muy nit ki muy xool ba déedéet moom yàlla la añaane yàlla lay xeexat sax ndax yàlla moo def ba pare mu ne li yàlla def jubut waaw moo na soo sooboon weneen yoon pour ñaan yàlla mu may la lu mel ni lim may jaam boobu wala lu ko ëpp sax yàlla waxtu wu nekk am na lu ëpp magasin yaa nga fees del te leen rek la wax ud'uuni astajib ko ñaan leen ma ma may leen moo tax bàyyi danay wax ne da ngeen yëkkati itte yi lu dul nu bu wóotu jeexut ci màng sini yàlla yi taalibe bàyyi mën naa dégg wax jooju bu baax da ngeen yëkkati itte yi li ko dalee ci xutbaaniyatul uzma ba ci xorom si ngay def ci sa cin ñaan ko yàlla rek yàlla mayal may la ñaar yooyu moom la emel waaw ndax du ko wàññi dara mbindeef yëpp suñ dajewoon ci benn barab ku nekk ñaan ba ñëpp pare bu jox leen lañ bëgg wala la ñuy ñaan mi ngi mel ni rek puso bii soo ko dugaloon ci géej gi génne ko rek lu mu wàññiwut géej gi rek du wàññi may yàlla yi dara waaw moo tax nañ gëm yàlla yonent wax na ci benn xadis ne ittaqullaha wa ajmilu fi talab na ngeen ragal yàlla te rafetal utin wi ndax soo ko ñaawee ñaaweelee itam du tax nga am lu ëpp li li nga war a am hmm? li yàlla ne may na la ko kenn mënta dox sa digganteeg moom li yàlla ne mayut la ko kenn mënul la koo may su ñëpp daje woon pour may la ko munuñ ko waaye lim la may itam su ñëpp dajee pour fànq may googu mënuñ ko bàyyi daan nañu nettali ci dars tafsir xulaawusu bi rabbil falaq mu ne dafa am benn buur bu tànn ci mbooloom boroom xam-xam yi kenn waxtu wuñ toogee jataay mun ne ko ubbil jataay bi te moom lenn rek la daa ubbee jataay bi ku la defal lu baax fay ko lu baaxam ku la def lu bon ku la éy na lu bon bàyyi ko lu bonam dana la fayul ci kaw ba kenn ci borom xam-xam yooyu fiiraange jàpp ko mu dem ca buru ne yow day diw mii ngay jiital ci kaw nit ñi waxtu wu nekk muy njëkk muy ubbi jataay yi te lu bon lay wax ci yow mu ne ko lu mu wax mu ne ko moom de dafa wax ne sa gémmiñ dafa xasa mu ne ko ah loolu naka laay def ba xam ko ba xam ne moo ko wax mu ne ko oo ko rek mu ne ko oowal ma demee invité ko la taajal ko ay laaj ak kooroog sobleeg yooyu mu lekk ba ci digg mu ne ko ay ah, yow kat fàtte naa buur bi def laa soxla ba mu demee di wax ak buur bi di fàtt bakkanam di fàtt gémmiñam buur bi ne kii ka ndekete li ñu wax moo ko wax buur bi bind leetar te mësta bind lu may suy joxe keroog nag mer na ba bindal loxoom mbugal mi yónni ko ci gouverneur am ne kii su ñëwee nañ ko rey yónnee ma bopp bi ak ampaaj bi ba mu génnee fekk ki ko boole bi ngi taxaw mu ne ko lu la buur bi wax mu ne ko dara bindal na ma benn leetar da jox ma mun na ko may ma leetar bi mu ne ko da ngaa xam lu ci nekk mu ne ko yow xamoon ne buur bi su su bindeeg loxoom rek dafay maye mu ne ko am mu jox ko mbindam buur bi mu dem cee gouverneur bi ba mu demee gouverneur bi jàng leetar bi ne ko a ah, parel buur bi kat daf ne naa la rey te yónnee ko sa bopp bi ak campagne bi léegi mu ne ko du man keneen la mu ne ko gis nga man xaamilu risalat la ma wax ki ennul leetar bi indil la ko indi man nag yaa ma indil leetar bi parel daal ko rey yónnee ba buur bi gisee bopp bi ko yónnee mooy boppi ki ko doon fumiste di ko jaxase ak waa ji mu oo ko ne ko waaw yow lu dox sa digganteeg diw mun ne ko dara mu ne ko ma soo wax ne man sama gémmiñ dafa xase mu ko subhanallah ma wax ci buur bi lu ma xamul mu ne ko lu tax na keroog ma oola di wax ak yow ngay fàtt sa bakkan ngay fàtt sa gémmiñ mu ne ko moom moom moom mu invité woon jox ma ay lekk ba sama gémmiñ xees mu ne naa la uy ma ñëw ragal laa lor ci sama xati gémmiñ man moo taxoon may fatt sama gémmiñ buur bi na ko mu ngoog la ma doon waxa ku la defal lu baax fay ko lu baaxal ku la ay na lu bon bàyyi lu bon la lu bon la dana këpp ci kawam yàlla dafa séddale ba pare waaw aljanna sax yàlla séddale ba pare ña fay dem ndax sëq na ci loxoom ne haulaay ilal jannati wala ubali haulaay ilal naar wala ubali ñii aljanna lañ jëm ak luñ mën di def ñii safara lañ jëm ak luñ mën di def waaw su la yàlla bindee pour aljanna nag dana la yombalal jëf jëfi ñooñ aljanna nga di ko jëf ba fekki sa borom su la yàlla su yàlla bindee nit ki nag pour safara dana ko yombalal jëfi ñooñ safara mu di ko def rek ba bés ba muy dajeeg boromam rek safara war ci moom kon ñun ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla defee ay jullit dëpp def ñu ay tiijaan defaat ju itam ñuy ay taalibe jënal Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahima Niass radiyallahu anhu ah, dégg ak digg yu ñu digg yëpp ak li ñu bëggal yépp waxtu wu nekk dangay gis ne taalibe Baay moom mi ngi tegu ci siraatul mustaqim rek ndax moom mu ne maam alaaji daf ko mas sant benn liggéey ne ko soo paree danaa la ñaanal ñaan ngoo xam ne mu ne mu sonn ca lool ba mu paree rek maam alaaji ne ko yàlla na la yàlla jubal mu ne mu xeeb ko ci xelam mu ne waaye ba mu demee ba jot jotuwaayam xam ne ñaan googu ko maam alaaji ñaanaloon rek mooy ñaan gi ndax njub soo amee ci farata yi juróom rekk bés bu nekk da ko ñaan yàlla fukki yoon ak juróom-ñaar ndax fukki ràkk ak juróom-ñaar mooy farata yi te farat ràkk bu nekk da nga jàng faatihatul kitaab fatihatul kitaab da nga wax ihdina siraatal mustaqim te gannaaw njub dëgg-dëgg ci loxo yàlla rek la nekk wax na yonent bi sax ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha du ne ku la soob rek nga jubal ko yàlla mooy jubal ku ko soob su njub nekkoon ci loxo yonent bi kon abu taalib ak abdu muttalib danañ nangu diine ji dugg ci waaye mbiram yàlla la kum baaxee kum ko may ku kum soob yow da nga gëm da nekk ci loolu itam wax na ko feneen ci alquran itam duut na laaye jële dafay contradict ak laaye ji wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim déedéet bind njub ci xolob jaam bi loolu yàlla rek moo ko man jubal nit yooni siraatul mustaqim loolu jëf yonent bi da sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla jubal yàlla na yàlla jubal suñ mbooloo yàlla na yàlla jubal suñuy jabar yàlla na yàlla jubal suñuy doom suñuy set suñuy dëkkandoor suñuy mbokk ci wàllu yàlla suñuy mbokk ci wàllu deret yàlla na yàlla jubal ñëpp dëgg-dëgg yàlla moo am jub yàlla nañu yàlla jubal dëgg-dëgg yàlla moo am dimbal yàlla nañu yàlla dimbale yàlla wax na ci alquran in tansurullaha yansurkum yàlla soxlawul ndimbali kenn waaye ndimbale ko mooy nga topp lim digle bàyyi lim tere te Mawlaana Cheikh wax na ne képp koo xam ne dangaa bëgg a ànd man man araada an yakuna maay fal yasluk tariqi fi l aqwali wal afaal bimtisaali l awaamir wa jtinaabi nawaayi képp koo bëgg koo xam ne danga bëgg a nekk ak man na nga sóobu yoon wi nga xam ne ci laa nekk rek topp ndigal yi bàyyi tere yi ma dawaami tashawuq ila mardatillahi wa waxtu wu nekk yaa ngi gën a namm pour gërëmloo yàlla gërëmloo yonent bi nekk ak bàyyikat lii la man taalibe bàyyi laa itam na nga topp yoon wii man taalibe bàyyi laa nañ la gis ci yoon wi nga xam ne moom la bàyyi bind bàyyi fii waaye bul dem di fental bàyyi ay wax yoo xam ne bàyyi waxu ko nekkul ci yoon ne na képp kuy oote itam na yaa ngi yaa ngi ànd ak moom ñu gis la ngay xët sharia bi toppoo ndigal bàyyiwoo tere mu ne mi ngi seddaloo yàlla di seddaloo ñépp ne moom amut ak moom benn affaire taalibe yi nañ dellu ci yoon yooni sëriñ bi yooni sëriñ bi leer na mi ngi nii xutba ajjumaam yépp da ci gis wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar bu leen fent waxal leen sëriñ bi li wax rek doy na hmm? Hmm? bind na wax na mi ngi ci kaset yi firi na alquran la ko dalee ca fatiha ba ca minal jinnati wan naas nga di ko dégg dégg xam kii lan lan lan lay wax dégg nga nga di ko fental dara barut jarut nga di ko propagandal jaru ko présenté ko comme ni mu mel nii rek waaw ndax ña nekkut ak moom sax ña nekkut ña nga xam ne jàppewuñ bàyyi sëriñ sax suñuy déglu waxam ñoo nit kee fay déglu waxi bàyyi ba mu yàgg mu ne waaw lii yëpp ku ko xamal sa taalibe naka lay nekkeeti naka naka lay nekkeeti sa taalibe hmm? boobu la war a nekk sa taalibe ndax war na laa delloo njukkal ci li ñu doon wax léegi hmm? loolu la waasatatu lan tafal sut su waasata amutoon lii nga àgg ni doo ci àgg mu bàyyi yombalal nañu diine yombalal nañu àddina yombalal ñu nekkin wi fii ci kaw suuf dañ ko ameel euh, pour delloo ko njukkal damay toujours suñuy jàng budda ba wax ne xatta xadat millatul islaami wa hiya bihim min baadi xurbatiha mawsulata rahimi damay wax ne lii bàyyi daf ñu ko defal ñun ñëpp bàyyi maa ngi lay wax bàyyi wadd bàyyi def ma nett li mu ne ma sëriñ Mbàkke Busa mu ne ko fonkoon sa bàyyi la ci muqaddima boobu mu bind ci kaashiful ilbaas mu ne waxtu wu ñëwaan seet si baay mu ne ala foog ñu oo sëriñ àll yi mu ne sëriñ àll yi waxee su sëriñ yi te mu ne muy kii bushra lana maachara al islaami inna lana min al inaayati ruknan gayra munhadimi mu ne di joxoñ sëriñ àll yu nii inna lana min al inaayati ruknan gayra munhadimi waaw lii bàyyi moom ma ko nettali waaw kon ñun ñu ngi sant yàlla biñ teewee ci ziyaaraam di ko tudd doy na rek inda zikri saalihiina tatanazzalu rahmat waaw ñu ngi leen di tudd fii di ñaan yàlla yërmande yooyu nga xam ne dafay wàcc waxtu wu ñuy tudd nit ñu xiw ñi te ñun ñii ñu doon tudd nii xamuñu leen gën a xiw waaw yërmande yooyu yàlla na ko yàlla wàcce ci barab bi yàlla na ko yàlla wàcce ci mbooloo mi yàlla na ko yàlla wàcce ci taalibe yi fu ñu mën di nekk yoon wi nga xam ne moo yoonu sëriñ bi te leer na ku ci ku ku ko xamut dellul ci jawaay rasaayil rek ah, lettre yi mu doon bind wala lettre yi mu doon dig digal sëriñ àll yi mu di ko bind jëmale ko ci taalibe yi pour digal leen naka lañ war a nekkee naka lañ war a def naka lañ war a toppee yàlla naka lañ war a toppee yonent bi sallallahu alayhi naka lañ war a sàmmee seen tariqa yi loolu yëpp ñu ci lettre yi ci jawaay rasaay hmm? soo ko xamul ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon nga laaj leen waaye yow doo laajte li yàlla wax fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun ala fokk rek danga fent fen pour ne bàyyi mooy lii bàyyi du loolu bàyyi lim nekkoon mooy alquran mooy hadis hmm? wax na ne yàlla may na ko wasaana ilaahiya nafsiya laa ura amilu ila ma laysa fi shari jaiza yàlla notal yàlla sàmmal na ko bakkanam sangeel na ko bakkanam ba lépp loo xam ne daganut ci sharia bi mu ne doo gis mukk bakkanam bi jeng jëm ca loola asariñ boo am noonu nag soo ko amee yow lu la réer ci mbiram laaj ko ñu nekkoon ak moom soo ko xamut la seetal lim bind rek seetal li bind hmm? li bind man nga cee gàggante woo hmm? wala li mu wax kaset yaa ngi fi soo dégloo kaset yi déglu jàng jawaay rasaayil wax ak mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom ñu fàttali la naka la nekkee woon ak taalibe yi lu mu doon digle lu mu doon tere da xam kii mooy kan hmm? benn waaye dafa maa wax ca jamono ne ma dama dégg ne dafa ma laaj ne ma ndax yow gëm nga ne Baye Niass nit ku baax la ma ne ko ah man kay gëm naa ne mboolem nit ñi moo ci gën tey mu ne man de suma baay ak sama yaay loolu lañ gëm ci moom dañuy wax seen xutbu la waaye man gëwuma loolu. ah ma ne ko ndox lan mu ne dégg na duy julli te dafay digal taalibe mi buñ julli. ma ne ko yow ndax mas ngaa gis bàyyi ci dund mu ne mosuma koo gis ma ne ko muqaddamam yu mag ñii ndax mas nga cee tase kenn. mu ne mosuma ko mosuma jot see kenn ma ne ko Nigeria googu nga jóge def na fa ay muhaadara mi ngi ci kaset yi ndax mas nga cee déglu dara mu ne mosuma cee déglu dara ma ne ko bind na ay téere ndax mas nga cee jàng benn mun ne mosuma cee jàng benn ma ne ko ah mbaat yow sa doctorat bi ci nii nga ko bëgg a bindee yow kii xamoo ko gisoo ko jàngaloo ko ñi ko xam jaxasoo ak ñoom waxaluñ la kon kii loo ko nga noo ko mën a àttee sax waaw mun a waxal ma dégg man ne ko fi mu ne nii mi ngi dund soo demee dana recevoir su waxtu julli jotee dangeen ànd julli ji su fekkee jamono jàngale danga gis muy jàngale xadis waaw ma ne ko léegi soo ñëwee topp ma ba suma kër fii ci London daa la may téere yoo xam ne bàyyi Niass moom moo ko taalif nga jàng ma may ko ay téere Baye mu jàng ko ñu dajayaat ci restaurant bi ñu daan añee ba ñu nekkee université waaye keroog ma bëgg a fay mu ne ma déedéet bàyyil ma fayal la tey yow man li ma gëmoon ci sëriñ bi man ba tey waxuma woon ko bàyyi mooy sama maam sax mu ne ma sëy Cheikh Ibrahima li ma gëmoon ci moom su ma dee su ma dee woon ak aqida boobu rek safara laa jëm waaye bi ma jàngee téeram yi gàggantiku na ci moom waaw kon nag ñiy dox di waxal bàyyi nga seen fent yi xel rek lañu amee nañ bàyyi loolu waaw soo bëggee xam kuy bàyyi laajal taalibe bi ñi nga xam ne tase nañoo moom mu jàngal leen yar leen waxal leen hmm? ñu gis ko muy dem ci jumaa ja di jaabante ku dégg bëccëg ba bi mu feebaree docteur bi ne na sëriñ bii dox Isaaka mu ne bi docteur bi ne na ko doxi lan man julleewu ma suma nekk man ci jumaa ja laay jullee doxi lan lañ bëggati hmm? kooku doon jaabante diggante këram ak jumaa ji hmm? juróomi yoon par bés soxlawul dox boobu kooku dem ba tëdd ci lali deem te taxut mu bàyyi ci lim nekk yoon dara kooku sàmm na diineem sàmm na tariqaam sàmm na léppam sàmm na alquraanam hmm? ba bis biñ ko opeere da ngay gis mu mel ni kuy nelaw ba mu yàgg rek mu ne tëccët di fi di tari alquraanam waaw alquran ji mu war a tari ci bis boobu moo tax ñu ne màggee lu baax rek moo baax soo demee ba màggat lu baax la nga nekkee woon rek mooy taxawaat mooy taxaw mooy taxaw boppam ci yow loolu nag mooy sëriñ bi baay taalibeem la yoon woowu la aw ak ñoom moom la leen jàngal tukki na ak sama baay lu yàgg ay yoon yu bari waaye lu ñu guddee guddee agsi ci dëkk su ñëwee rek da ko gis mu dellu ci ay naafilaam ak ay awraadam du wax mukk ne dama sonn waaw hmm? lam doon def daal sooy wàcc rek ma ngi koy def waaw te dañoo jàngal nit ñi ba pare boyal leen suma baay dañoo ànd mag umra ji biñ umra ba pare ñu ne dañuy julli ji fajar gannaaw julli fajar dañuy dem jël oto dem Madina ziyaara ji yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi fi ñuy julli fajar nii rek maa ngi dend ak benn waa Soudan mu nuyu ma ne ma sëriñ bi kan la ma ne ko Seydi Ali lañ koy wax ma ne ko mooy sama baay Seydi Ali lañ koy wax. maa ne ko ñun sax ñu ngi fas ay na gannaaw julli fajar ñu dem Madina. mu ne lu ngeen di demee ma ne ko oto mu ne ah sëriñ bu mag bi ngeen di ko dugal ci oto gajar gajar ba Medina ret su ngeen jullee fajar ba pare ndax mas ngeen dugg sax ci kaaba gi ma ne ko man de ñëw naa màkk lu ñaar fukki yoon waaye kaaba gi mosuma ca dugg mu ne ma su wiitee na ngeen man danaa leen dugal ci kaaba gi ma ne am na lu mu wax mu lu mu wax ma ne ko mu ne suñ fi ñëwee huit dana ñu dugal ci kaaba gi mu loolu jar na jar fomm ah ñu fomm huit ñu ñëw bi ñëpp di rëj-rëjloo pour dugg ci biir kaaba gi am ku jógee ci biir kaaba gi ne xallu cheikh walli maa yatlaaw bàyyi leen sëriñ boobu mu ne xallu cheikh wal li maa tlaaw sama bàyyi eeg am sa topp ci ma topp ci ñu dugg sama bàyyi ne dafay julli ci biir kaaba gi ma ne ko ah sëriñ bi ci ban xibla ngay jublu fii ne mu ne yee eh, bàyyi ma ma ne ko ci ban xibla mu ne bàyyi ma ah ma ne ko bismillah mu julli ba ñuy génn ci kaaba gi rek mu ne fu ñuy jaayee téere yi fii ñu dem téere buy wax ci miti mbiri kaaba gi rek alqiraa li mul quraak yooyu yëpp mu jën jënd taarixu fatihi makkaak waaye may itam téere bu mu jënd rek ma jënd dem seeti masala mu jàng-jàng ba ne feeg ci masala bi ne ma kaay nga jàng fii ma ne ko farata moo fa dud xam nga ne julli wu moon farata waaw waaw xawit boobu man jàng <laughs> itam ba gis ne naafila mën naa wér ci biir kaaba gi waaye farata mënu faa wér ma ne ko farata moo fa dud wér ma yow xam ne julli wu moon farata waaw dégg nga eh. mu na waaye mu dem jëndi téere ma jënd téere ñu dox ba daje ci masala mi mun a kaay jàng ñoom noonu lañ ñu yore waa moom la bàyyi doon wax ne waalidi qayadahul wara wa ana atlaqani l ilm mu ne maam alaaji wara moo ko tënkoon waaye moom xam-xam moo ko tinki wara mooy loo xam ne lii la yàlla daganal danga ci bàyyi juróom-ñaar fukki bunt pour rek teetee ko sa bopp teetee ko sa bopp ci lu xaraam xam-xam nag mën na laa tinki ba nga ne lu dagan rek mën nga cee dugg comme loolu sëriñ bi wax wasaana ilahi nafsiya la ura amilu ila ma laysa fi shari jaiza yàlla sangal na ma suma bakkan ba jamono lépp kenn du ma gis may jàng jëm ci loo xam ne daganut ci sharia ñun sëriñ bu mel noonu lañ amoon sëriñ boobu itam taalibe bu mel ni sëriñaal Aliou bokkoon na ci ay taalibeem jàngal na leen ba ut ba xoolu seen xam-xam ñu samp ay daara ci kanamam di jàngale ca jamono dañ daa jàngi ci Baye su jeexale foofu dem fële ci sëriñ yu jàngi soo bëggee tarbiya itam mën a demal fële ci sëriñ Aliou noonu lañu nekkee woon fii ci Medina ñu ngi sant yàlla nag ci fàttilu gi ci daje bi ziyaara comme ni ma leen ko waxee ziyaada la te dafa war te bàyyi waxoon nañu charte yi ñuy ziyaara wax na ne taalibe boo xam ne dafay xaar ba am xaalis soo ko ñëw ziyaara si mu ndax olof dafay bàyyi lu war ngir lu warut taalibe olof dafay bàyyi ziyaara te moo war ngir lu warut te mooy addiye ji ndax da ngay toog fële naan man aw ma addiye ju mooy yóbbu kon mënumaa ziyaare ji mu ne képp koo xam ne taxawaay boobu mooy sa taxawaay soo amee addiye sax bul ñëw bàyyi ñes loolu la wax waaw su fekkee waxtu wu nekk préparé nga pour ñëw ziyaara si fi la su boobaa da nga ñëw sa ziyaara boobu dana nekk ziyaada ci yow ci zahir ak ci baat yàlla moo yonent yàlla muhammad moo yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sallam wax na ne juróom-ñaar yàlla moo leen di eral ca roon arasam ga bés ba nga xam ne ker amut imaamun aadilun ilimaan ju maandu koo xam ne ak shaabun nashaa fi taatillah ndaw loo xam ne dafa sosu ci topp yàlla ak koo xam ne waxtu wu génnee ci jàkk ja xolom baa nga aju ci jumaa ja ba ba mu cay delluwaat ak ñaar ñoo xam ne dañuy tasee ci yàlla di ci fasantikoo mooy suñ dajee bii tey ci yàlla lañ dajee fii suñuy tasaaroo itam ci yàlla rek lañuy ñuy tasaaroo ak ku jong ma oo ci boppam mu bañ ngir ragal yàlla ak ku saraxe ci loxo ndeyjooram nëbbu ko ba loxo càmmooyam xamut lam saraxe ak ku wéet di sikkar di tudd yàlla ba ay rongoñam di rot ñu delluwaat ci ñaar ñi nga xam ne dañuy tasee ci yàlla di ci fasantikoo bàyyi ca njëlbeenam waxoon na ne law usina lii fi tasarruf laxtartu tasarrufa fi lqulub mooy suñ ko joxoon digal ci tasarruf kon moom lan lay tànn mooy tasarruf ci xol yi xol yi jaam yi rek ñëpp ñeyal yàlla yàlla may na ko ko yàlla may na ko itam salaaxal qalb comme li ngeen dégg léegi ma waxoon ca jëg naaw ne na moom mu ngi sant yàlla yàlla may na ko jikko boo xam ne ñu bëri ci góor ñi dañoo rafle jikko boobu mooy lan mooy na añaanewut kenn nit ku mu gis rek d'accord na ci yow ak may goo mën di am d'accord na ci ndax xam na ne lii mooy nam nam yàlla ci nit kooku bàyyi da bëri na lu mu ñëw xaaxal waxtu wu mu ñëwaan daanañ dem masjid sidna al xuseyn masjid sidna al xuseyn soo fa demee am na néeg boo xam ne mu xalafaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo fa nekk ndax dammitu eti yonant baa nga fa sallallahu alayhi kawari yonant baa fa sallallahu alayhi wa sallam doggiti mbubbi yonent baa nga fa sallallahu alayhi wa sallam tusngalukaay yonent ba ma nga fa sallallahu alayhi wa sallam mushaf boo xam ne sidna Ousmane moo ko bind loxoom ma nga fa radiallahu anhu mushaf boo xam ne sidna Ali ibn Abi Talib moo ko bind ak loxoom ma nga fa radiallahu anhu waaye yii yëpp loo ci yëkkati rek mooy tegal ci xol bi ndax mu yéwén loo yëkkati rek mooy tegal ci xol bi ndax mu yéwén yàlla may ko loolu ba bi mu demee ba sapp de waxtu wu ko docteur am seetee rek ne his his body is sick and his heart is clean ndaw lu doy waar kii jëmm jaa ngi feebar waaye xol bi dara jotu ko ndeysaan su ko defee mu ne lu mu wax ma ne ko mu ne al jismu maridun wal qalbu salim maa ngi koy fàttaliyaale laaye ja yow ma laa yanfaaw maalun wala banuuna illaa man atallah bi qalbin salim waaw ci noonu ci la ujjee boromam ñi ngi sant yàlla bi ñu amee sëriñ bu mel noonu ñu ngi sant yàlla bi mu bindee bàyyi fi ñi ngi sant yàlla bi mu waxee mu nekk ci kaset yi mu nekk fi ñu ngi sant yàlla bi mu firee alxuraan lépp ba tey mu des ci kaset yi ñu ngi sant yàlla bi góor ñu bëri desee ba léegi ci góor ñu àndoon ak moom nekk ak moom mu yar leen jàngal leen waxal leen ñu ngi sant yàlla ci loolu ñu ngi ñaan yàlla suñu réew yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla saxal barke yàlla na fi yàlla def naataanga te noonu ñu koy ñaanalee suñ réew noonu lañ koy ñaanalee réew jullit yi nga xam ne ñu ngi ci doon tànt bii teew ak ñun muy muy waa Nigeria muy waa gaana muy waa Gambie gii muy mbo mbokk ya nga xam ne jóge nañ ba Ndakaaru teew ak ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla képp ku fi teew ak aajo ak aajo ju mën di doon yàlla na yàlla faj aajo jooju lu ci duur mooy yàlla bokk na ci njëriñal ziyaara itam wax nañ ne soo jógee sa soo taxawee ci sa buntu néeg rek ay na ne yaa ngi ziyaara ji ngir yàlla bépp aajo boo fasaale muy zaahir muy baatin muy àddina muy àllaaxira yàlla dina la fajal aaju jooja waaw bokk na ci njëriñal ziyaara itam mu ne xaqat mahabati lil mutazawirina fiya wal mutahabina fiya wal mutajalisina fiya wal mutabasilina fiya yàlla moo wax ci xadisul qudsi ne moom yàlla mbëggeelam war na ñeel ñi nga xam ne dañuy ziyaarante ngir moom dañuy toogaale ngir moom dañuy joxe seen alal ngir moom dañuy toogaale itam ngir moom dañuy bëggante itam ngir moom te loolu mooy jataay bi ñu fi daje ñëpp sopp ngir yàlla rek moo leen fi indi loolu rek doy na bënd pour ñu daje waaw ah. ne dafa am kenn ci sahaaba yonent bi imaam Anas nett li hadis bi mu ne dafa am kenn ci sahaaba yi daf daa toog ba xaaji guddi rek mu dem kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam su demee ba gis yonent bi rek dëppaat benn bis yonent laaj ko ne ko hey diw lii lan la mu ne ko waxtu ma fàttalikoo ne léegi ñu dee dem àllaaxira dem aljanna nga nekk ci kër yi koowee koowee ba dootuñu mën a jot ci yow ma ne xaaral ma dem feesal sama bët ci gis yonent bi balaa gis koo jafe yonent ne ko al maru maa ahab nit ku nekk yàkk nga sob yenn ay bokk dëkk ëllëg ci àllaaxira mu ne saxaaba yi ñu ne mosuñoo kontaan gannaaw buñ nekkee jullit kontaante gu em ni bés ba yonent waxee ne almaru maa man ahab moom kii riwaaya xadis bi mu ne moom bëgg na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgg na Babacar bëgg na bëgg na Babacar bëgg na Omar te mi ngi ñaan su ëllëgee mu nekk ak ñoom ñun ñu teg ci ne ñun bëgg nañ yonent bi sallallahu alayhi bëgg nañ Babacar bëgg nañ Omar bëgg nañ Ousmane bëgg nañ Ali bëgg nañ sahaaba yonent bi yépp sallallahu alayhi bëgg nañ Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu bëgg nañ mbooleem xulafaawam yi bëgg nañ Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu bëgg nañ mbooleem xulafaawam yi te ñi ngi ñaan yàlla su alaxira ñu nekk ak ñoom allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam alhamdulillah walsalatu walsalaamu ala rasulillah amma baad fa ana ankaxtuka iyaha ala charte kitabillahi taala say I accept na karba wala na yarda fa imsaakum bi maarufin aw tasrixum bi ixsaan alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wisrak alladi anqada dahrak wa rafana laka dikrak fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusra fa ida faragta fansab wa ila rabbika fargab alxayr yàlla na ci yàlla def barke alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah amma baadu fa ana ankahtuka iyaha ala sharti kitaabillahi taala aca waxal nangul naa fa imsaakum bi maarufin aw tasrixum bi ixsaan alam nashrah laka sadrak wa wadaana anka wisrak alladi anqada dahrak wa rafana laka dikrak fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusra fa ida faragta fansab wa ila rabbika fargab al xayr yàlla na ci yàlla def barke yàlla bind ci ngir lu baax lu tey ay saalihiin ak saalihaat yàlla bu ci dara lu ñuy rëcc feeñ ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag loolu moom lañ tëjee jataay bi ak ziyaara bi ñu ngi fàttaliku xadis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi muy wax ne fa aleykum bi majalisil xayr fa inna majlisa xayrin waxidin tukaffiru alfay alfi majlisin aw yukaffiru alfay alfi majlisin min majalisi suu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi mu ne na ngeen jataay yi yi benn jataayab xiw boo fekkee dana kaafara ñaari junne junne ci jataay safaan yoo xam ne fekkee woon nga ko te ñun amuñ sikkina jataay bii ñu nekk tey bokk na ci jataay yi xiw yi ndax alquran lañ fi wax xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh ahmad tijaani cheikh ibrahima ñas radiallahu taala anhuma ak seydi aliin Cissé mi nga xam ne moom lañ euh, xasasal bés bi ak guddi gi radiallahu anhu ñu dellu di kontaan kii ñu doon may jabar léegi muy Ahmad Tidiane Zakirou américain américain biñ ko may moom ma wax ne ma ne ko yow la loo séentu ci Zakirou mu ne ma séentuma ci moom dara waaye gis naa ci moom ne bëgg na yàlla bëgg na yonent bi bëgg na sëriñ bi ci loolu rek ci laa ko may sama bopp fàttali ma wax joo xam ne Seydi Aliou ci boppam daf ko waxoon dafa am muqaddami tijaan bu mag bu ñuy wax abdouraouf xuseyn dafa am kilifa gu mag ci tariqa bi gu ñëwoon qaahira mu laaj ko lismul bi nekk ci fatihatul kitaab kilifa googu ne ko ci chartab nga jox ma xams miati dirham zahab abdouraouf amut loolu gannaaw ga sama baay ñëw rek kilifa ga delsiyaat di ko laaj tur wi sama baay jox ma carnet bi pour ma bindal ko ko bañ ko ko bindalee ba pare ma ne ko ah ndax ki jox na la dara mu jox mu ne joxut ma dara de waaye gis naa ci moom bëggeeli sëriñ bi jox naa ko ko ci loolu kam njëkk laaj xam si meeti dirham zahab la doon laaj waaye bis Seydi Ali yi ñëwee mu ne gis naa ci moom bëggeeli sëriñ bi jox naa ko ci loolu tegal ma ca sax ne ma am maa yow fekk amoo ñeen fukki at bul tur bul sikkar tur wi ah gannaaw ga nag ba ma bàyyi ne yow yow yow may naa la ndigal ci lépp ma del siyaat ci ma ne ko yow kat yaa may tënk waaye sëriñ bi kat tënkut ma waaw mu ne nag moom moom yéefam loo lu mu la wax rek defal loolu dégg nga eh, ñi ngi sant yàlla bu baax ci jataay bi ñi ngi sant kilifa yi nga fi te yi fi yii fi teew e eh, ñu ngi sant mbooleem doomi baay yi nga xam ne teew nañ fi di sant sët Cheikh Ahmad Tidiane bi sant surofaa yi jóge ba Mauritanie di sant Yaxya mi doon wax léegi ak rakkam Cheikh Baye di gërëm itam suñ najaay yi nga xam ne ña nga jóge ba tey ba pour fekkee si lii ak gën a fedd li kóllëre goon xam ne daf leen a takke woon ak Seydi Ali di sant itam suñ baay yi nga xam ne ña nga jóge ba Jooson ñëw itam pour feddali kóllëre googu di sant góor ña di sant jigéen ñi di ñaan yàlla jataay bii suy dell si déwén képp ku teew fii te teew feeg aajo aajo ju mu di doon lu du lu ci duut mooy yàlla balaa jataay bee dell si déwén yàlla na yàlla faj aajo yooyu yàlla na yàlla def bark yàlla na bëgg yàlla na yàlla feesal loxo yi ak àddina te feesal xol yi ak yàlla Baay Ñas wax na ne su loxo yi fees àddina lo xol yi fees ak yàlla àddina jooju duñu lor yàlla na yàlla feesal loxo yi ak àddina te feesal xol yi ak yàlla ak bëgg yàlla ñi ngi sant ba tey gouvernement bi ci mbiri làmp yi di ji wax président lay Wade ne ko ndaw lim ñu booleet ba mu defar làmp yi muy moo Modibo Diop doon nañ ko séentu tey mu ñë mu nekk ak ñun ci jataay bi waaye nee na président daf ko sant ay liggéey ba mënta teew ak ñun waaye ak loolu ñi ngi sant taxawaayam ñi ngi koy gërëm di wax ne lépp lu ko kilifa yi wax ci ñun ak ci gox bii ci leeral gox bi dalee ko ci Kossy Mbittéen ci Bul Sutura Kossy Thiamène Kossy euh, Sele yëpp wax na ne dina ko dana ko leeral Kossy nag taal nañ ko démb ci fukki fan ak juróom benn di bési àjjuma fukki fan ak juróom benn ci mois de mai 2008 di fukki fan ak benn wala fukki fan ak benn ci jumaada Lula mu leeral gox bi muy taarix boo xam ne nañ ko jàppee noonu te bañ koo fàtte taarix boobu ci lañ leeral Kossy gii muy taarix boo xam ne duñ ko fàttale ñi ko leeral itam bu ñu leen fàttale ci ñaan ñu leen fàtte ci ñaan yépp topp yonent yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku la defal lu baax fay ko lu baax soo ko mënta fay nga ñaanal ko ba ba mu yëg ne ñaanal nga ko yàlla ñii ci def seen loxo ñii ci def seen itte ba mu am ñu ngi leen di gërëm ci suñu làmmiñ ñu ngi leen di ñaanal ba tey itam ci suñuy làmmiñ ya président bi yàlla na ko yàlla may wér wér gi yaram yàggal ko fii ci njaboot gi mu mu yàgg a jiite yi Sénégal jiite leen itam ci xam-xam biñ xam ci moom ak itte yi nga xam ne xam nañ ko ci moom nga xam ne lu jafe lu sori dana ko xëcc ba mu ñëw fii ci réew mi loolu yëpp ñu ngi ko ci ñaanal yàlla eh, di gërëm bu baax ñëpp Seydi Abdou Malick itam mi ngi nii moom ñun ñoo bokk fanaan ci jataay bi barka démb laa ko doon sant fële Ndakaaru ba tey itam jataay boobu def na ko jataay waxu ma ne teew na rek waaye teew na ba pare jox ma xaalis bu bari ne maa la ko dimbalee ci gan ñi ñi ngi sant itam waa RTS ci seen liggéey ñëw nañ comme ni leen ko seeni kilifa waxee itam pour bokk ak ñun dundal guddi gi bokk ak ñun itam filmer ko def li nga xam ne moo ci war yëpp ñoom ñëpp ay ndaw la ñu ngi ñaan yàlla mu def leen ay mag te def leen mag ñu barke itam ñu ngi ñaan yàlla may leen wërsëg wërsëg yu barke itam te yàlla may ñu ko ñun ñëpp dama indi damaa indi benn waaye ci bàyyi ne ko bàyyi kii sama xarit la mu ne dafa bëgg nga ñaanal ko xëyna daaray ni maanaam doylu ci ci ñaari kër yëpp àddina ak àllaaxira nga ñaanal ko itam assaada fi dunia wa fi laaxira mu texe àddina texe àllaaxira nga ñaanal ko itam ilman naafian xam-xam buy jëriñ nga ñaanal ko itam zuriyatan saalihatan mutamassikatan bi diini ilaa yawmi diin mu ne ma hee ñun ñëpp loolu lañ soxla waaw kon nag loolu nga bàyyi wax ne ñun ñëpp loolu lañu soxla ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na ñu ko yàlla defal ñun ñëpp jëb jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bi barakati cheikh radiallahu taala anhu wa bi sirri alfatiha bismillah alhamdulillah alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi allazina astafa wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa ala taabiciina wa taabicihim bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi jullit ñi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di nuyu nuyooyu lislaam bi gën tedd di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu guddi gi guddi cant la ñi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ko mayee itam xéewal yi lu mu bari bari soo ne alhamdulilah rek sant nga ko ñun ngi sant ci xéewal gi ñu gis di ñaan yàlla ndolloon waxtu wu nekk ñi ngi nuyu nasrul ilm bi nga xam ne alaaji paate mii moo ko samp fii ak mbooleem ñi nga xam ne taxaw nañ ci liggéey bi di ko ci dimbale bañ jógee ba léegi yokkatuñ tàyyiwuñ bàyyiwuñ te yàlla rek moo jar loolu sufiyanke yi dañuy wax ne waasil tasil li nga nekk continue ci rek danga nga mës a àggi alaaji paate ba muy ànd ak ñun comme ni mu ko waxee jàngalekat yi l'école rek la woon waaye bugg na yàlla bugg na yonent bi bugg na Seexu Tijaan bugg na sëriñ bi bugg nañu loolu itam saxal na ko ci ay ndaw bañ màggaale loola màggaale nañ bugg yàlla googu léegi ci ay waxam wax na ne xale yu néew doole xale yu tuuti waaye lépp luñ joxoñ rekk yàlla defal leen ko loolu defe naa ne alaaji Paate am na ci dars bu leer ak man sax benn bés biñ tabaxee suñ daara jëlee ca Medina booba ñeenti classe fa nekkoon mu ne ma sëriñ bi ma ne ko paate damaa bëgg nga bind ministre bi ne ko mu ñu mu may nuyu reconnaissance pour daara ji paat ne ma imaam règlement yi dañoo wax ne balañ laa may reconnaissance da nga am ñaata classe classe bu nekk ñaata nit ñoo ci nekk waxoo wax lim ba pare man xay yow paate suñu yëf ngay emale ni waxi waxi nit ñi ci mbedd mi ma ne ko yow bindal ma rek hmm? ba mu bindee ba ministre bi jot ko Ibrahima Niang non seulement daf ñoo reconnaître daara ji waaye dafa jël téléphone sax téléphoné ma ca saasa ne ma sa lettre agsi na wax naa ne nañ ko def rapidement ma ko sooy liggéeyal yàlla loo dugg rek yàlla yàlla nga cay fekk yàlla la cay wollu itam yonent bi sa alayhi wasallam moo wax ne man kaana lillaahi kaana allaahu lahu soo nekkalee yàlla rek yàlla nekkal la nga nekkal yàlla ci sa am